Sunugal 24 point net dañoo nekk ay nit yoo xam ne ñii nit yu am wëllëre la ci li ñu seqan ak Sembène Ousmane nit ñoo xam ne ñii bi ñu commencé jàng li Sembène Ousmane bind xool film yi nga xam ne Sembène Ousmane def na ko ñu ne daal bu ñu sañan euh, mbëgte bi ñu ci jëlee ñu bokk ko ak ñeneen te bokk ak ñeneen mooy ni ñu gën a gëstu pour xam ndax Sembène bi mu gaañoo ba léegi ak bi muy dund li mu doon wax waa Afrique di ko wax àdduna bi yépp commencé ko ci senegal est-ce que loolu jar na ñu gëstuwaat ci est que loolu jar na ñu xoolaat ban daraja la Sembène Ousmane am ak lan la Sembène Ousmane indil nit ku ñuul parce que Sembène li mu doon xeex yépp mooy ñu jox africain gëddaam jox gëdd africain bokkul ne 1960 ñu ne léegi yéen moom seen bopp parce que bu ngeen lire l'Harmattan avant que la Guinée Guinée ne moom bokkul ci ref bo dafa wax non au référendum 1958 euh, ñeneen yeneen dëkk Afrique yi ñoo ngi dem indépendance 1960 ñu ne ñoo moom suñu bopp léegi ku nekk di fecc ka woy waaye bu ñu xoolee ci ginnaaw juróom fukki at yi weesu bi ñu amee indépendance ak léegi Afrique mi ngi jànkantoog problème yoo xam ne kenn xamul nu mu toll kenn xamul bi bi mu juddoo kenn xamul kañ lay yem maa ngi fàttali sànq ne leen bu ngeen xoolee li xew Mali fi mu nekk nii ak li xew Burkina nit ñu jóg jël ay gànnaay di rey ñeneen loolu li ko indi mooy ñi xam ñi ñoo yore bopp réew yooyu defuñu li ñu waroon a def ndax jàmm am ci réew yooyu yaakaaruma ne benn dëkk ci àdduna mën ngaa dem ci kanam ñi say doom war a jàngi ñi war a dem ñu faj leen ñu war a dund dund goxane gi ëpp amul dara luñ ci sikki sàkka ñooñu ñun am nañu droit ñun africain dund dund bu mel noonu waaye dund goo gi soo xëyee yaa ngi ci jafe-jafe ba ba ngay tëdd semaine def ñu won bu ñu gëstoo bu baax a baax a baax daañ xam lan moo tax loolu am li ko jëkk indi nag mooy ñi nga xam ne ñoo ñu doon noot bi ñu nekkee ci buumu colonisation may ñu suñu indépendance ñu dem ne ñoo moom suñu bopp léegi te juróom fukki at mooy nit ku juddu 1960 ba léegi war ngaa gën a sax passé borom kër wante yaa ngi ci ay jafe-jafe yoo xam ne sa sa àdduna sa ëllëg suba xam loo fan lay yem. ñu ne semben buñ ko jàngee bu baax a baax a baax a baax a baax bataaxalam xañ na mën nañu jox ay tegtal li tax ñu demee noonu parce que amul benn réew boo xam ne bi jëm nga kanam te joxoo gëdd jigéen ñi joxoo gëdd xale yi jigéen mooy indi dund ci àdduna xale mooy tabax réew xale mooy mooy ki nga xam ne kii moo war a yore réew bu subaa dama ko tënk noonu rek waaye bu ngeen ñëwee ci conférence ci ci colloque bi da ngeen gis communication yu bari yoo xam ne gëstu nañ ci yooyu problème donc donc pour pour que gën a xóotal li ma lay tontu Sembène buñ ko jàngee xool ay filmam euh, sottante ci ay xalaat dañ xam ne yàlla néewul ne Afrique ila abadan fi mu nekk waru fay jóge ñun dañu am droit li tubaab wax bonheur dañu am droit ne àdduna bi ñu fi yàlla teg ba ñu koy fekk ji nañ fi dund dund koo xam ne dund gu sell la dund koo xam ne gi dana ànd ak mbégte dana ànd ak diine pour ñi xam ne ñoo gëm yàlla dana ànd ak loo xam ne lii mën na wax ne kii mooy nit parce que sembeen li ko jëkk jëkk jëkk yëkkati mooy nit nit ki nag mën na nekk góor mën na nekk jigéen waaye góor ak jigéen dañu war a ànd pour ñu mën a ànd liggéey il faut que kile leen ñi ñi ñu tànn ne ñoo leen jiite ñoo ñu war nañ def li ñu war a def bu ngeen xoolee xala xala daf ko wane toit bi dem nañu ñuy fecc taxaw ci buntu chambre de commerce scène bi ci topp ñi doon fecc ci biti ñëw sol ay costume ku ne ñu tegal la valise xaalis loolu mooy guerre guerre boobu semme doon wane sunu Afrique bi te loolu moo fi indi jafe-jafe yi parce que Afrique am na lépp loo xam ne àdduna bi soxna na ko muy pétrole muy gaz loolu moo ñu soxal fi mu nekk muy manganees muy or muy diamant muy bauxite muy leneen te ñi nga ñoo ko soxla duñ ñu bàyyi mukk ñun ñu doxal suñu bopp ni ñu ko bëggee semaine nag dafa jël baaraamam teg ko ci ne bu ngeen ko gëstuwul du ngeen mën a comprendre lu tax mu yëf yi demee noonu non li ñu bëgg rek mooy euh, nguur gi li mu doon def mu gën ko yokk na ko gën a yokk c'est-à-dire que Euh, am na sax ay xalaat yoo xam ne ñii mi ngi commencé meññ ñoo ngi ñaan yàlla xalaat yooyu gën a jëm kanam ba euh, li nga xam ne ni moom lañ yéenee Sembène parce que ñun li ñu gën a manqué Sénégal mooy modèle kan lañu mën a ràññee ci Sénégal ne kii ku ko topp fa nga jëm dana baax modèle nag pour nga am ko il faut nga woon xale yi ne lii mooy modèle bi bi mooy kan modèle bi mooy kaa xam ne kii amul benn gàkk-gàkk boo xam ne bii tiramal na lim li mu doon liggéey fii bu ko fi yàlla jëlee bu fi nekkee nag nga gën ko ko wan parce que li gën a baax mooy bu nit ki dee dund nga ne ko li ngay def kat waaw góor euh, gënal góorlu bu dee aussi nga ne nga fàttali ko ko ne kii def na fi jalooro yoo xam ne ñi mën naa tax nit ñi ne dañ koo naw dañ ko bëgg a topp dañoo am toppandoo modèle boobu nag moo fi manqué ci sunu àdduna bi nañu wut ay modèle pour nga am modèle nag il faut nga am lu ñu wax moral moral mooy lu ñu la dénk bul ko saax-saaxee <coughs> lu ñu la jox bokk kook nit ñi na yitte nit ñi nekk sa yitte bu ko deful li li boroom xam-xam doon wax révolution du ñëw mukk parce que de révolution la li indi révolution mooy nit ñi xam ne dañoo xiif dañoo jaaxle amuñu seen ëllëg boo leen ne jóg leen ñu jóg te bu buñ jógee suñu dëkk yi nga xam ne ñi dafa fragile unité yi war a am ci suñu réew mi dafa nekk en danger nañu fexe ba yooyu unité bañ yooyu unité ñu bañ ko yàq loolu moo indi guerre bi euh, euh, Libéria loolu moo indi woon guerre bi Libéria loolu moo indi woon jafe-jafe yi ñu am Mali loolu moo indi jafe-jafe yi nit ñu am Burkina Faso nañu fexe ba loolu bañ am sunum réew te semaine dafa ñu wanoon ne yoon yi bu ngeen fi jaaree xañ na ngeen bañ faa dem. wax naa ko sanq danañ projeté benn film boo xam ne bi ñu bari gisuñu ko mooy Alburax muy court métrage bu bu neex a neex a neex du ma ci leneen na ngay ñëw saraan ko ah, daañu projeté aussi li mu wax léegi ci li semben doon wax ci moom ci boppam te daañu projeté aussi euh, ci centre culturel français euh, samedi bu juróom 18h30 euh, passé daañu projeté la noire de ci version boo xam ne bii moo gën a moo gën a baax version yi nga xamante ci kii bi. bëgg nañ nag dem aussi complex Sembène wante dafa xaw a xat loolu moo tax mais. mais association bi li mu mëbët mooy ci projet mi benn bi mi ngi tudd l'école du soir bëgg nañ def ay ciné club bëgg nañ dem ci école yi bëgg nañ waxat waxtaan ak gone yi pour que ñu mën a xam aussi Sembène Ousmane kan la mais au-delà de Sembène ciné club dafa war a dafa war a am ci fi ñuy jàngee parce que day yeete day yee nit ñi ci àdduna day yee nit ñi ci xam-xam moo tax ci sunu projet yi l'école du soir mi ngi ci biir voilà woote ah, bind nañ ñu bëree bëree bëree waxuma ne kenn faale wuñ de <laughs> yónnee nañu ay lettres ñu bëree bëree bëri ñoo xam ne ñii yaakaar na ne tey jii bu ñu leen bindee dañu tontu ne mën nañu wala mënuñu njiitu réew mi ci la bokk waa francophonie ci lañ bokk. te mbokkeel gi nga xam ne ñu mbokk nañ ko ñooñu war naa tax bu ñu def lu mel nii ñu jàppale ñu ci xañ ne peut-être amuñu jot gi xañ na jotuñu sunu balaaxal xaw ma la moo xew ci diggante bi. Sunugal 24 point